jëf ah, mbokk yi amati mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi nu ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di leen daralal ay ndaanaan di leen daralal ay kilifa yi nga xamante ne yéen a leen di bëgg a gis fii ci Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu rek la ñu dalal ndaw loo xamante ne nag sénégalais yi xam nañ ko àdduna xam ko ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ne am na ko ci réew mi waaye di ànd ak ndaanaan bu mag boo xamante ne kenn mënu koo tudd ci réew mi muy le roi des arènes Modou Xarañ Lo suñu waxee Modou Xarañ Lo nag xel yépp dina dem ci ki nga xamante ni moo d Demba Xarañ Lo di ah, moom laa dalal nag tey fii ci Sénégal Buzz 221 dama koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk internet yi le frère Demba maa ngi lay siyaar di la bëggee. waaw asalaamaaleykum maa ngi delloo siyaar. Mm-hmm. di nuyu mbokku jullit yi mbokku taalibe travers Sénégal Buzz. Mm-hmm. waaw ñëpp maa leen di siyaar xam waaw macha allah ñëpp yaa ngi leen di char yaakaar naa ni jotaay bi bu ñu ko toogee rek jotaay la boo xamante ne xëy na ngir waxtaan euh, ci événement bi nga xamante ne jamono ji sénégalais ñu ngi koy xaar euh, yàqamti ko nag daanaka yàgg si na ba pare muy face à euh, bi nga xamante ne nag dox na ci diggante Modou ak Ama Baldé laata muy dugg ci face à face boobu dem ba naka ngeen waajee champion bi. waaw comme ni ñu ko daan waajee rek xam nga affaire yi moom. lu nekk dafa am àpp quoi xëy na biñ ko taxawee ak léegi yàgg na. Mhm. mais xëy na day doog a jot rek. Mhm. moo tax quoi incha allah léegi di di profité waale occasion rek di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si jàmm. Mhm. ñu génn ci jàmm xam waaw lu dul jàmm daal jàmm ko gën quoi comprendre nga. comme que waa Pikine ñooy dalal tamit gars yi xam nga. gars yi tamit dinañ ñëw xam mooy loolu quoi. Mhm. gaa yi dinañ ñëw mooy loolu le promoteur euh, Luc Nicolaï woote face à la le cinq euh, décembre euh, bi nga xamante ne Sénégalais yëpp ci lañ jàppoon ne ci la combat bi di am fassa à boobu Modou ak Ama war a jàkkaarloo waa Parcelles naka la ñu waajee bés boobu. waaw comme niñ ko doon comme niñ koy waajee rek. Mhm. xam nga Modou moom daanaka bis yëpp. Mhm. bëri na ko quoi. jàkkaarloo naag ndaanaan bu ne. xam kon yaakaar naa ama na ñëw joxe cëru rakk rek xam nga mhm. waaw mut tamit magam la xam mhm. mooy loolu daal affaire daal fola rek mhm. yaa ma gën a xam mais nag ku daanu rus ma yàlla na ko yàlla may moo du ndam lu sedd guy waaw man loolu laay ñaan ko mais man à chaque fois su ma déggee communication waa parcelle euh, dafay mel ni combat bi da ngeen ko oyofal lool lool lool lamb ji amuloon ci pression de seen communication mi bu Modou ak bu yéen tamit lan mooy seen problème ak lamb jàpp ama bu arbitre génnee seen diggante da def comme ni ngeen daan def seen yeneen adversaires yi dem wala lan la ba tax sawaru leen ci lamb ji seen xel dal ba mu ëpp. sawar nañ si sax xam nga combat moom. Hmm. da def li nga war a xam capacité mu xam li mu manee mm-hmm. ak fonk làmb bi mu ak mu fonkee làmb. Mm-hmm. da ngay soo tëddee sa xel day dal ko à comprendre. Mm-hmm. waaw loolu la quoi. Mm-hmm. loolu moo tax fu mu nekk nii nag communication bi ñu bëri jàpp ne nag ah, da ngeen mën a da daan ama ba pare toog di eh, toog seen kër moo tax ngeen di communiqué nii mais yàggatul euh, face à face bi nga xamante ne promoteur bi woote na ko le 25. Euh, à chaque fois dem ñu ngi découvrir li nga xamante ne aussi mooy violence ci làmb euh, bu ñu tuddee làmb ji ñu weesu di Papa Sow te gis nañ dafa xew tey lu toll ni Ama Baldé ak Modou Lo waral dellu si waat ci arène national pour sensibiliser rek ñi nga xamante ne ñooy fan si yan kàddu la dem ba di yëkkati ci non violence bi. waaw comme comme li may wax rek xam nga làmb mm-hmm. làmb dafa dafa doy waar quoi mm-hmm. parce que boo xoolee rek àddina euh, li lay wane àddina du dara rek mm-hmm. lépp ay tàkku la rek wallaahi que am na ñu bëri laa ni buñ demee ba wax leen ne Balla ak Modou Lo dinañ dem ba toog benn bool boo xamante ne ñoo fay wallaahi añandoo eh, wala di fa defandoo lu bëri kon ñu bëri duñ ko gëm duñu ko gëm te sport sport la. Mhm. footballeur yi ñoom seen biir ay xarit lañ. Mhm. bu heure match jotee dañuy match mais bu loolu jeexee. Mhm. ñoom dañuy ànd basketteurs yi noonu ñeneen ñeneen noonu. mais làmb dafa dem ba nga xamante ne. maanaam am na yu bëri doo ko ragal a wax sax. mais da ngay am sax kersa wax ko. wala dara. te pourtant nit. du euh, du lekk nit mais njëriñ rek la koy amal quoi. Mhm. comprendre nga man Modou Lo mooy suma mbër. Mhm. ñëpp xam nañ ne Modou Lo mooy suma mbër. leer na àdduna. Mhm. parce que bu ma demee ba jël suma tur ñu may dànk tale ay demb xarañ loo nga xamante ne du tey du démb yàgg na. c'est des années et des années. comprendre nga mais nag ma am tamit ay nit yu baax ay wóolare. ñoo xamante ne sumay nit lañ. nga xamante ne même du cadre làmb mm-hmm. dañuy demalante di ñëwalante mm-hmm. xama ñu seq jàmm moo tax làmb man pour man mm-hmm. gars yi dañu war a bokk ndey bokk bàyyi parce que ñoom mbëri ñoom seen wàllu bopp ñooy mayante xaalis wallaay dëgg la te bu ñu amee seen xaalis am na ñoo xamante ne ñu ngi seen ginnaaw yaakaar leen léegi boo yàqalee loolu mbër mi Hmm. yàqal nga ñeneen ak ñeneen. ci lu leer te loolu amaana motu ko. Hmm. comprendre nga. Hmm. waaw ba tax na daal xam nga di ñaan yàlla yàlla yóbbuñu si ak jàmm. amiin ak salaam ñu génn si ak jàmm quoi. loolu daal laay sàkk quoi. supporters yi nga leen di woo ci dal. waaw waaw non supporters yi moom. ci dal la ñuy ñëwee incha allahu rabbi xam nga. loolu moom. amuñu sax xel ñaar quoi. Uh-huh. waaw macha allah loolu amuñ ci xel ñaar mu mm-hmm. nekk kàddu sensibilisation yu am solo yoo mm-hmm. xamante ne xëy na ci ñaari camp yëpp la ko dem ba mm-hmm. partagé ah donte ne Modou Lo mooy mbërëm waaye euh, sensibiliser bu ñu ko waxee ku ci ne rek lañ bëgg mu jëriñu ci mais bu ñu paree ci point boobu dégg nañu nag Ama li mu wax ci làmb ci ci làmbinam nee na bëgg na jour de face à face bu Modou ñëwee ñu mayante contact du tontu ko it nee ko otoom heure boo ko ubbee ay ngemb la ciy fekk waaw loolu dëgg la loolu loolu dama koy firndeel hmm. Modou déggoo ma de boo ko fekkoon ci otoom sax boo ne koo wàccal ñu bari mu wàcc. nee na day bëri ci costume day bëri ci jasneer day bëri ci lépp. <laughs> ci lépp. waaw ci lépp non ama ama ama xam na Modou Modou xam na ko bu baax. si mois la def France. gis ngeen forme bu mu ñibbisee. six mois la def France waaw baax na. Mhm. yàlla baax na. forme bi Ama ñibbisee euh, tiitu leen ci. wala amul leen lu mu leen yóbbu. man de wax dëgg yàlla su ma demee ba nga xamante ne ci Modou ak Ama damay am dara lu ma ciy tiit wala di sàkk sikki sàkk. Hmm. non ma xam ne man Demba xarañ loolu may woote du dëgg ci man quoi. waaw lii kañ maa la ko wax moom. ah waa Pikine de nee nañ pare nañ pour jël seen bien yëpp teg fa jeexal. waaw xam nga ñoom dañuy teg jeexal. <laughs> waaw baax na yàlla baax na daal wax daal ñoom daal nañ xam seen bopp rek xam nañ xam ñoom seen teg jeexal rek waaye ñun suñu teg jeexal. dina leen ump quoi te xam naa ne moom combat bi lu mu leen jaral benn rek. ñun jaral nañu ko fukk. lu mu leen jaral fukk ñun jaral nañu ko téeméer. te lépp rek nag ci cadre lu logique. waaw lii maye li nga xamante ne moom xam nañ ko ne moom suñ borom duñ si toppee dara muy ci entraînement ak ci ñaan bu dee loolu rek mooy maye ndam. Mm-hmm. bu soobee yàlla xam naa ne moom. Mm-hmm. côté entraînement moom Modou dina ko gérer leneen li it am na ñu koy gérer quoi. am na ñu koy gérer waaw. li Ama wax nañ mayante contact ñoom ñaar bëre bi ci Modou. ci moom rek la dépendre Ama na wax rek nan la ko bëggee rek bu soobee yàlla. Mm-hmm. waaw. làmb ji fan la lan lan la ci dem ba xalaat bëri bi mooy gën a dal sax xel Modou def ko wala mu ñëw taxaw xeex. déggoo ma de Modou lu mu si def rek man dal na sama xel Modou amul dara lu may sikki sàkk si moom. Uh-huh. dara dara dara nu mu ñëwee nu mu bëree nu mu def rek. Uh-huh. sama xel dal na ci moom. sa xel dal na ci moom. wallaahi lazim. ndax noonu la daan def ba indil leen roi des arènes. Ah? waaw <laughs> waaw yi ak seen euh, ak le champion Modou Xarañ loo kenn mu nu leen tàqaleeg moom ndax dañ ko bëgg aussi mu yàgg leen a bëggal waaye ba tey rek euh, Demba ci sortie ki nga xamante ne aussi mooy Modou Lo mm-hmm. démb déglu nañ ko nag mu def sortie boo xamante ni Sénégalais yëpp sortie boobu dafa leen jaaxal mm-hmm. ah, donte ne ki nga xamante ne mooy Abdou Bakhoum ak Jules Baldé yàgg nañoo wax ci Modou di ko sànni ay traite mais démb bi Modou defee sortie euh, dafa xamal ama amoo staff mm-hmm. la encadré nañ ma baal ci wax ji ay kàddu yooyu du wax Ama nan nga ko déggee yow. waaw mais loolu loolu xam nga xam nga xam nga oh, mooy li ma lay rek làmb làmb la quoi comprendre nga. Uh-huh. xam nga duma nekk fii di wax ay stratégie lii wala léeg mais xëy na Modou moom. moo xam moom lu tax moom mu waxee noonu mu wax leen loolu. waaw uh-huh. ah, te nekk na mag boo xamante ne xëy na bu ko waxee. Uh-huh. am na fu mu ko teg. waaw loolu loolu loolu moom. est-ce loo ci gis. ah staff Ama man xaw ma leen. Hmm. bu Modou ne Ama amul staff yow en tant que. man staff Ama l'ami de Modou lan ngay gis. man staff Ama xaw ma leen. ay Jules Balde Abdou Bakhoum ak ñeneen ak. xam naa leen nii rek de mais xaw ma leen mais Ama xam naa ko Alaaji Mbay xam naa ko. Hmm. ay ceebu ay affaire yooyu ñooñu xam naa leen yàgg na ay Tafa Diop. Hmm. ay Assane mais ñooñu mën ak ñoom dooy affaire lu làmb quoi. wala dara comprendre nga. mooy comme li may wax gis nga àddina. àddina dafa gudd tànk. Moodu ak Papa Sow ku loo xoon dinañ dem ba bokk fi ñuy entraîné mhm. te xoolal bari nañ fi bëri bu rëy. Mhm. Moodu ak Balla Diouf. Mhm. xoolal loolu yëpp Moodu. ak Balla Gaye tout récemment. loolu image boobu ñëpp dañ ko rafetlu. ñu bëri di ko di ko di ko di ko di ko partagé. comprendre nga àddina noonu la quoi. àddina moom. àddina waaw. paa yi ñu ngi nii ñoom dóorante dóorante yu metti mhm. te tey jii nii ñoom ñooy demalante ñooy ñëwalante loolu mhm. jàmm daal jàmm daal jàmm ko gën ko quoi vraiment wax dëgg yàlla mhm. waaw man pour man gars yi léegi am na esprit bu boo xamante ne dépassé nañ ko quoi comprendre nga waaw man pour man yii nii yëpp nii yenn booy la rek. Mhm. yenn booy yi nga xamante ne. war nañu am esprit de grandeur boo xamante ne supporteru Ama war na toog supporteru Modou ñu waxtaan ba arbitre sifflé. mais déggoo ma de. man mhm. damay toog ñoo xamante ne ay supporteru Ama lañ. ay mhm. supporteru Balla Gaye wala ay supporteru leneen. dañuy toog nii seq li ñu war a seq bu heure dem jotee ñu dem. te mun nañ toog mun nañ toog nii laa wax nii ba jóg ba dem. man am naa benn xarit tout récemment Demba Jama mun nañu toog laa lax mhm. ba fanaan ba yendu te duñu wax sax waxu Ama ak Modou Lo mhm. toujours lu ñuy jëmale kanam ci la ñuy nekk mhm. wala mu naan Demba ak sama koñ kii social lii wala lee wala lee wala lii wax loo xamante ne dina dinañ jëmale kanam quoi mais pas nekk fii temps temps wala lii wala lee wala lee gars yi weesu nañ loolu quoi comprendre waaw macha allah gars yi weesu nañ loolu maam Ali yaakaar naa ne loolu aussi kàddu yu am solo la yoo mm-hmm. xamante mënul woon ñàkku ñu indil ko internetu Sénégal Buzz 221 ci face à face bu mag boobee nga xamante mm-hmm. le grand promoteur Serigne Fallou Luc Nicolaï moo ko wootee fële ca arène nationale euh, dox ci diggante Modou ak Ama Baldé euh, di làmb ji nag yoo xamante ne yàgg nañu ko xaar ah, waaye nag euh, li ci des nag dem ba mm-hmm. temps bi bëriwul dama lay bàyyi rek nga joxe dernière kàddu yi ci li nga xamante ne moom la waxtaan jàkk dernière kàddu yi turam ak santam mm-hmm. comprendre nga di profité waale mm-hmm. di nuyu suma jumeau ale ñaa xam mm-hmm. waaw di ko souhaité happy birthday to you ah, xam naa ne le 24 mooy anniversaire en même temps tamit di jaale waale suma benn ami d'enfance Auguste xam waaw di nuyu waale Keba Kanté Youssou Ndoye xam nga di nuyu ñëpp suma limee day dinaa jum papis waa pro automobile xam ñoom ñoom yi ñoom tuuti xam nga ñoom musa Ndiaye gaa yëpp waa mixa di nuyu tamit madame Giro xam nga waa ñoom maire Thiamase ñoom ñëpp di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu tamit Ebony Séri Maguette Ndiaye waa Gambia yëpp maa leen nuyu maa ngi waaj xam nga waaw ñu ngi ci yoon bi di waajal ñëw incha allahu rabi bu soobee yàlla mhm. nuyu sama xarit yi jóge Suède nekk foofu mooy ñoom Osil xam nga ñoom ñëpp maa leen nuyu quoi. Mm-hmm. waaw macha allah mbokk yi yaakaar naa ne loolee kàddu yu am solo la yoo xamante ne xëy na seqoon nañ ko ak Demba Xarañ Lo fii ci Sénégal Buzz 221 mu doon actualité boo xamante ne nag xëy na dinañ laal ci ñaari camp yépp ah, muy Pikine muy Parcelles ah, dinañ ci génnee ku ci nekk sa xalaat ñu partagé ko ak yéen ci événement boobee nga xamante ne ñu ngi koy waaj mbokk di kontaan bu baax a baax a baax rek di jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen